Ini سار وفي سفر هماني على ما هم مع الحبس والسفر ñuy di siyaar ñëpp di ñaan suñu borom boolu ñu jéggal ñu ngi baal àq ñëpp tey baal àq ñëpp ñaan sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké na fi yàgg te wér sëñ Cheikh njabootu maam Cheikh Cheikhul Khadim njabootu maam Cheikh Fall gépp euh, dellu ñaan la sëriñ Tuubaa Cheikh Salihu suñu borom dolli tax ñu ci barkeem yi fa saale it mbokki taal bi yi nga xamante ne suñu borom dogal nañu àndoon ak ñoom ñuy ñaan suñu borom yokk yëmbal si ñoom yokk ak ak njéggal si ñoom di santaat bu baax a baax a baax euh, ndigal di daaw ñu ngi toogoon fii di def man ni wàccaay màggal Touba muy daara mu baaw asidixeen Touba Ngor te sëñ Mamadou Samb jëwriñ jiite ko sëñ Moussa mii moo ko fi toogal ñi ngeen xamante ne ñoo toog fii nag ñooy commission bi xamante ne nii euh, liggéey euh, daara ji jëwriñ si ñoom la ko teg waaw kon pour gàttal ñu jox sëñ Moussa defee mu tijji incha allah ñaan ñu mën a dugg si biir liggéey bi sant it ñu wax ne nek wa keur maam ak wa ngor tv ñoo and ak ñun si liggéey boobu jëm bismillahir rahmanir rahim wa salam ala man rasulillah mbokk julli di mbokk talib yi ah kep ku dégg suñu kaddu wala dañuy seetaan wala dañuy dégg ah di borom xam-xam wala di borom pas-pas ñu ngi dog ngand si mom ku dega dégg lo xamne ni amana ñima ko waxe Euh, jubul nga jubbanti ko wala ku si dëkkee loo xam ne ni euh, jaar na yoon nga xam ne rek suñu waxi suñu borom la waaye nit mooy nit moo matul ah, di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi di wax Cheikh Ahmadou Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di jëfati si bés bi xam ne moom la ñu mooy euh, màggal gi ah, di sant mbokki taalibe yi ah, seen pas-pas seen taxawaay ak seen yitte bii ñoo def su saa suñu nekk waaye nag lépp dañ koy sant suñu jëw di dundee sam ndigi jaa jëfal amana euh, ànd xale rek óorul ànd mbakk zalika rek óorul waaye tey bu ñu amee ba di taxawal bési mel nii ah ñoom il fa ñu jàpp ñu di ko jaajëfal amaana benn mag rek kott si ñun la waaw fu ñu nekk ànd na fa ñoom fu ñu nekk ànd na fa ñun waaw ba amaana tey tànk yi moo xaw a euh, kii rek jataay bi kenn woo ko na def te teewul waaye ndig dañ koy def ci ndigalam waaw loolu daal mooy euh, waxtaan wi man damay bàyyi mbokki taalibe yi rek ñu dugg ci illa bi waaye man daal ñu ngi ñaan ñu tàmbali bismillaahi rahmaani yeggal ko alhamdulilaahi rabbil aalamiin ah di sant euh, waa Ngor TV ak waa kër maam ah vraiment ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm te xam naa yi moom. bu euh, euh, suñu kàddu bu mënee yegg fenn wala ñu dañuy gis si image mooy ñoom rek la mooy ñu sant di ngeen di ñaan seen liggéey ñaan na ko yaay yóbbu fa kawe kawe kawe seen jot lépp lu ñu liggéey rek yaan si def barke waaw ab tàmbali day métti waaye nag bu ñu nee bu soobee yàlla moom defe naa lépp dina yomb asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu rahmatulahi taala wa barakatu mbokk ñi seetaan seen télévision Ngor TV comme niñ ko defee woon rek euh, ren def naa ñu si daal di la Euh, màggal Touba yi nga xamante ne chaque at euh, day am te délégation bu am solo di jóge fii Ngor di dem ba foofu donc xam naa duñ def rek euh, lu dul balaa ñuy ñëw si disposition yi nga xamante ne daayira bi jël na ko pour wàccaayu màggal gi ñu ñëw rek ci comme niñ ko defoon daaw ñu ñëw ci histoire màggal gi xam naa gannaaw ba nga présenté wu ñi lay seetaan. xam naa ñu ñëw rek ci première laaj bi mooy lu waral euh, màggal gi auzu billah bismillah bi allah alhamdulillah dama tawfiiha wa ala alihi wa sahbihi zawri jeex bokki jullit bokki taalibe yi ñu ngi képp kenn koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu ak foo mën nekk nuyub julit ak mbokum julitam nuyub talib ak mbokum talibem mu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tey ñoo ngi jital tay siyaare bu baax tay ñaan serigne touba say Muhammadul muntaha mbake suñu borom yagal ko fi lol te wéral ko bepp yene bop amna ko ci l'islam mu sotil ko gannaaw bi di ñaanal julit ñepp ak talibe yëpp barke bi yasir lahum bihi lazi ta'sara fa kullu ma yasartu tasra di ñaan sëriñ bi jappandal suñu mbir yépp ganna bi it ñoo ngi nuyu sëñ Moussa mi fi nekkal jëwrin ak bokki talibé yi wa Ngor TV ak wa Kër TV ganna bi it di wax na rek ñoo ngi fatalé fàttale goo xam ne suñu jambar jo xamné ne mom dongu daanu daaw ko téré xex muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ko jaajëfal di ko delloo njukkal bu baax di wax na rek dafa am bés boo xam ne ndëkk bés la boog bésu jullit ñëpp la gannaaw ba mu liggéeyale boroomam ak yonte bi sallallahu taala alayhi liggéey boo xam ne ku ne xam na ne faraxtoo bi xiddamin la shaaniya muy benn liggéey boo xam ne moom képp moo ko liggéeyal boroomam sunu borom defal ko ci ay ndam yoo xam ne bari na lool ba jox ko bés boo xam ne defal ko ci ndam loo xam ne rëy na lool ba taxoon mu waxoon ne képp koo xam ne rek bés boobu muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar saa bu bés bi dikkatee daal daa sàkkoon moom Cheikh Ahmadou Bamba mu Rasuul képp koo xam te ne daal sama mbég ak sa mbéga bu bis bi dikkee rek nag ma ci santale yàlla sama borom ndax lépp lu mu am ci moom rek bés boobu moo ma ko may waaye àggoon na ci bay wax na it képp ku ma yaakaar it lu mu am ci boromam rek bés boobu moo ko may muy bés boo xam te ne rek moom la ñuy waajal ku ne xam ne ne sëriñ bi jekkuwul rek woote it euh, màggal gi ndax waaye da am ndigalal sunu borom gannaaw ba mu ko defalee ay ndam yoo xam ne jaarloo ko ci ay barab teg ko ay natt yu metti yoo xam ne yu yàggalu lool ndax ku ne xam ne na natt yi ba ko sëriñ bi di jaayanteeg boroomam am na ñu fi jiitu woon sëriñ bi nekkoon ay góor yàlla nekkoon ñu làqoon seen eh, ngërëmal seen boroom nekkoon ñu rëy lool ci yàlla waaye ndëkk mas nañoo bëgg it la sëriñ Tuubaa am tey ci boroomam muy bés bii di maanaam euh, bésub safar 18 safar bi waaye sunu boroom desee tegoon njëg goo xam ne gu metti la nga xam te ne ku ko mës bëgg rek sunu borom wax na la la ma koy jaaye am na si ñoñ wax nañ ne mas nañ ko jël sax ba yéenu ko waaye dañuy dox nañu mënuñoo euh, dem ñu daal di delluwaat gannaaw ndax yëfi metti na lool ndax ay nattu la yoo xam ne ku ne xam na ne dañ ko tollaleeg limub suratu baqara muy ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ay épreuve yoo xam te ne rek bu ne Sëriñ Tuubaa daana wax na xayru xóoru ju ruux lu dul gënn ko ruux gënu ko metti te nattu bu masaana tegu rek ba ko ñaareel moo gën a metti ba jiitu ba ñetteel moo gën a metti ba ñaareel ba ba noonu mu nekk ci at ay at yoo xam te ne bari na lool masta yokkat masta dellu gannaaw benn yoon nekk ci liggéey boo xam ne bu metti woon na te yàgg lool nga xam ne fukki at yoo xam ne moom la ko suñu borom waxoon bi xurbatin asra sinine wal xiddam xaalistan lidulu juudu wal xiddam nga xam te ne fukki at yoo xam ne nee ne maa ngi leen di xamal ne sànkuwul sama borom fay na ma lépp nga xamte ne fukki at yoo xamte ne sëriñ bi farlu na farlu goo xam ne ba ko suñu boroom jëree fii ci réew mi yóbbu ko ci biir ay noonam danaka liggey bi sax mat ta fukki ati matul mo waralon ñu yóbbu ko gànnaar mu aggal fa manam euh, ba fukki at mat ñu dal di ko wat fi ci rew mi bon serigne bi dal ku ne xamne ne suñu borom da ko bëggaloon ay darajat yo xam ne sunu borom moko nam moko namon ci mom non ma ko rek sababu khaybati ya an arada an anala min hujaha waaye nag ngir ñaar waan akuna shaafihan li xaw mi waaye nag waan akuna xaadiman fi daw mi mooy sama borom daf ma nammaloon bëggul bëgguloon ay daraja yoo xam te ne yu rëy la te bëggoon na yit su ëllëgee it ma nekk ab ram waa kon ñeel sama nit waaye nag bëggoon na it ma nekk koo xam te ne damay saxal si liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu moo waraloon sunu borom daal di koy teg ay nattoom rek ngir ay ndamam mën a feeñ ndax sunu borom lu ne rek da koy wutal sabab bon loolu moo waraloon sëriñ bi nekk ci tumuranke googu ak mettit yoo xam ne yu yàgg lool jaar ci ay barab yoo xam ne xëñ na waxtu wi duñu ko may waaye wax si euh, maanaam si gàttal rek bokk na si yoo xam ne sunu borom defal na ko ko rek ba ba ba ba mu waraloon mu woote ko nekk képp koo xam ne daal sa mbek mbek rek bu bis bi dikete nang ma sante santale sama borom wax ci ne kep ko xamantene rek defal nga ma donte ab deureum la lu ma sama borom fayee euleuk rek dana ko bokk ak yow ag bay wax ne it bes la bo xamantene euleuk buñ buñ buñ aljana nga xamantene aljana dañu wax ne amul espace amul temps amul ay bes comme fii ci adun niñ koy dundé wah waye sunu borom dana euh, ragné bes bi manam ci wa aljana fàttali leen bésub Ahmad Cheikh Ahmadou Bamba bañ daa màggal ci àdduna ba xam ne bu bés bi dikkee rek waa aljana dañu xam ne tey la bésub Sëriñ bañ daa def ci àdduna nga xam ne bés la boo xam te ne rek euh, bésub rawe la waaye it bésub dabe la ndax bëri na ay ngëneel yoo xam te ne rek moo waraloon Sëriñ Tuubaa woote si ak cant goo xam ne gannaaw ba ko sunu borom nattoo natt yoo xam ne ku ne daa xam na ne sëñ bi sunu borom daana ko ay natt natt yoo xam ne ba keroog ba mu jógee ci tukki bi sax ba dellu ca fii ak fañ ko mas a jaarale rek du maanaam bu natt bi doon téeméer at ma say tegu sunu borom dana su dolli beneen téeméer mu gën a metti lool mu dëkk si nag ci ay at ba sunu borom nag nam ko teral bés boo xam te ne wàcc na wax nañ ne nasaraan yi sax demoon nañ ba xam waxtu wi natt wi di ñëwee si moom ndax bu masaana ñëw. wala natt bi di waaj ñew señ bi day wajal bopam ci lu bare bare fas kii ne tegoo natt yi muy ay natt yo xam yu metti la waye nak suñu borom mom li ñaan kep ko xam nor la fay rek du la liggéeyloo moo ba ko suñu borom nak na andil ak payam go xam ñepp ne xaj nañ ci ci la ko teggilee ay nattom xamal ko nak natt yi jeexna bes bobu nak bi mo ñëk defal magal gi bopam santel euh, sant boromam wax nañ ne ab gàttale si njëkk rendi boo xam te ne da koo def ñetti xaaj rek bii mu jox ko waa taalibe yi ne woon ci biir kër gi ñu jëfandikoo bii mu am si kenn si ay soxnaam ya mu yoroon mu jox ko ko ñetteel bi it mu ne nañ ko saraxe ba noppi digle si ay ay digle yoo xam te ne daal nga xam te ne lépp rek da ko bokk ak jullit ndax ku ne na xam na ne sëriñ bi moom bextu si wàllu islam bil islaam xubtu xaani man bilaa madaam lépp lu dul lislaam daal jaay naa ko jënd lislaam nga xam ne nee na man lislaam du ma yedd mukk te it wax na ne bixtisuwal ilaahi bil ilaahi wa wa wa wa maanaam e, maanaam jaay naa lépp loo xam ne du lislaam jëndeli maanaam jaay naa lépp loo xam ne du yàlla jëndewaat yàlla wasaana am lia bi nabi àndaax waaye nee ne yàlla ñoŋal samay mbir si barkeb yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne moom ñëpp rek la fi nekkaloon moom sëriñ bi bon loolu moo nekk loo xam ne mooy euh, li nga xam ne moom lañ mën a tàmbalee rek di wax ne bés la boo xam ne daal bésub jullit ñëpp la gannaaw ba Sëriñ Tuubaa liggéeylee boroomam ba suñu borom gërëm ko defal ko weer woo xam te ne ku ne xam na ne sëriñ bi ndëkk ku am am fulla la lool fexe na ba am weeru boppam ndëkk muy safarul xayri bu la neex sax nga ne wal barakat maanaam weer woo xam ne lépp aw yiw la ak barke ndax benn bés boobu moo tax weer wi yëpp barkeel fi mu ne safar Euh, bañ tambalé bës bi ci jitu ba euh ñuy àgg fan fanweeri fan yi mba juróom-ñetti fan ak euh, jur manam fukki fan ak juróom ñent lepp rek day nekk barké te lepp benn bësub sëriñ tuwa bi nga xamanté te ne la ci liggéey ba suñu borom défal ko ci motax wéru yépp barkel sëriñ bi ku ne xamné na ni ko waxé rek mom mom julit ñepp la fi nekkalon loolu mo waralon mo digle ci ay digleem dal ba incha Allah rabbi si lolou lañ nek ni di ko di wax ne rek wa man yu xasim fa huwa khairun lahu inda rabbih kep ko xamantene dal yaangi magal lo xamantene sunu borom moko wormal sunu borom ci bopam neena kat yow ne nga xamne fay gu reuy ñen la fa man bon jaadu na si bépp jullit nga wajal bes bi bu baakha baax ta xamne serigne bi mom ndam limu ci am ñëpp lako bokkal te it ñëpp xaj wax ne daal ñoo ngi wàcceel suñu kàddu fii. jërëjëf waaw donc dégg ngeen li nga xamante ne euh, sëriñ Mamadou Touré indi na ko si euh, historique wu màggal gi xam naa nag euh, ñaareelu laaj bi rek balaa ñuy dem si ñeneen ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu organisation bi. Mm-hmm. mooy tey boo ñu doon wax rek ñi nga xamante ne ñëpp dañuy waajal màggal gi war a dem Touba. Mm-hmm. ana digle yi nga xamante ne tey nit ki bu ko defee tey mooy gën si. màggal muy soit jàng alxuraan wala jàng xasida yi hmm. yu ni mel yoo xamante ne ay digle la baax na daal si nga xamante ne ñëpp dañ loolu moom am na solo lool waaye dama am sama beneen sëriñ boo xam te dama ko bëgg a jox kàddu gi mu leeral ko hmm. waaw sëñ ah. Jibril Gueye moom moo gën a jotali si loolu ah, waaw bisimilah bisimilah waaw donc ñu jàll si sëriñ euh, Jibril Gueye nga xamante ne moom dinañu indil euh, tuuti si wàllu digle yi mooy euh, li nga xamante ne képp koo xamante ne daal kuy dem ci màggal gi xeyna don na ay ay ngeenel yo xamantene boko taxaw rek def na yool bi nga xamantene yep euh nit mu koy sakku si magal gi ding ko am donc xamna seigne Jibril euh, gannaaw bi nga nuyo ñi lay euh, nga indi ñu rek tout rek si ay ngeenel yo xamantene kep kuy dem wala ko xamantene dal daal fas nga magal bi si magal gi nga xamantene mom lay amal chaque at euh, nan la wara taxawé taxawee. billah bismillah inna waliyallah wa ma wajal rasidan wa mursida wa fiqrati nawir wa qalbi arshida assalamu alaikum warahmatullah mbok juliti mbok mbokki taalibe ngi leen di nuyu di leen di ziar di leen bu baaxa baaxa baax di aman mbekté ci jotaay bi di sante ñaari tali yi xam ne ñoo ñu fekk c'est muy Kër mam TV ah Ngor TV ñuy am mbégte bu baax waaw sëriñ bi di jéem a tontu sa laaj yooyu suñu kéem kàttan ndax laaj bi mën nañ koo laaj ku ne te ku ne tamit war na ko mën a tontu bu ñu waxee ne ñi fay dem nu ñuy demee foofu rek dana yomb maanaam fépp foo xamante ne ab jullit dafay dem rek ni muy demee rek noonu rek la fa war a demee ndax sëriñ bi moom ooteem ooteem lislaam rek la ooteem lislaam képp la waaw nee lu loo xamante ne du yàlla du yonente bi maanaam kenn du ko gis si loolu maanaam si diine lislaam rek la ne loolu buñ ko dee am tënk maanaam dinañ ci jéem a indi benn xasida boo xamante ne daf ko defoon bi ko lenn si mag ñi doon yóbbu ci bunt buur yi maanaam jamono yooyu waajuram dafa làqu woon ñu doon ko ko jaale bi ñu ko jaalee nag am na ay kàdd yoo xamante ne ñi mu àndaloon waxoon nañ ko ko xëy na loolu si la ñu jéem a indi rek mu doon ab tënk bu ndaw bu gàtt boo xamante ne dinañ ci wax mbirum sëñ bi ndax xasida googu guddul xasida xaaloo la xasida googu sëñ bi si lay wax ne biñ koy jaale dañu ko dañ bëggoon a ànd ak yow yóbbu la ci Lat ndax féete woon na foofu sa waajur féete woo xamante ne maanaam bu doywaar la sa ko defee yow nga mën a féete fii sa waajur féete woon Lat Joor waaye sëriñ bi biñ ko yóbboo moom dañ dana leen dañ na kat wax nañ ma ne naa jénga jëm si bunti bunti yi waaw naa jénga jëm si si buur yi muy xasee gi mu wax ne xaaloo li yarkan li abwaabi te taxuus jawaaz tuus uus ni kulla maahini maanaam nee nañ ma ne naa jénga jëm si bunti buur yi nee na bu ma ko defee kat danaa làq ay may ay may yu bare yoo xamante ne dana ma doyluloo si bépp jamono fa xultu mën a leen xas bi ya doy na ma rab yi sama boroom waxta faytu te doyloo naa bisi ci moom waaw walastu raadiyan du ma du gërëmloo leen xel mi wa diini duma ma gërëmloo dara lu dul xam-xam ak diine kon laaj bi ngay laaj day dugg si du ma gërëmloo dara lu dul ak diine kon ñun fay dem maanaam dara yóbbu waruñu fa yobbu lu dul xam-xam ak diine xam-xam ak diine muy jaamu yàlla képp moo ñu fa war a yóbbu akuk sant ndax sëriñ bi loolu la digle daf na kaay leen santale ma sama borom ndax suñu borom ni ko Ahmadou waxee léegi daf daf ko may ay xéwal yoo xamante ne maanaam moom muy sant ci xéwal yoo ko suñu borom may maanaam santuk làmmañam mu mu xeeb ko muy wut na ku ko santale ne kon nag ñëw leen santale ma kon nag kii sant nag am na nu muy demee foofu koo xamante ne léppam da ko jox yàlla muy mu di jaamu yàlla kon booy dem di ko santale sunu boroom am na noo war a mel am na melokaan yoo war a yor ndax waxoon na ne euh, ku ñuy wax zeena bu mu dénkoon ko ko na ko laa tanaalul diina doo am diine mukk xataa tostari mbate da suturaal jismiki sa yaram kon loolu jigéen ñi am nañ ci wàll zeyna bu la ko dénkoon ne ko doo am diine mukk mm-hmm. li fekk suturaaluloo sa yaram mm-hmm. kon nga jàngat ci ne mm-hmm. booy dem ci barab yu demee noonu ak fu mu mënte bu dul tuubaa rek sax bu dul digle bi ko sëriñ bi wax ne nañ ko ko colin yu refle yi maanaam lislaam rek loolu la la wax maanaam nga matal sag colin bañ a sol solin yu refle yi est que du que loolu sa xalif bi gis bañ ne fan yi ñu ne tere nañ ay mèches ak yëpp. waaw mu ngi ñëw ci loolu. maanaam boo gisee rek ñoom loolu la ñu yeesal. ku fi mas a toog rek. maanaam dafa fesee si sañ sëñ taxa mu leerale noonu. waaye ñoom ñi fi newoon ñëpp. ku ci ne loolu mooy sa mission. maanaam teg nit ñi ci yoon. ndax nee nañ ne ab taalibe ak ab sëriñ mu mel ni ku dégg woote bi yàlla. te xamoo fu mu ne. nga am ko jàpp moo la gën a xam yoon wa nga bëgg mu yóbbu la fa maanaam ca dëkk ba mu na la nag jógal ñu dem bu ngeen àndee nag di dem ngeen dox bu mu yàgg nga bëgg a toog noppalu nara na toog mu bàyyi la nga toog mu na la kat jógal yeggaguñu ngeen continuer di dem loolu nag mooy diggante ab taalibe ak sëriñam maanaam da koy jéem a teg ci yoon bu mu bu mu yoxat mukk na continuer noonu rek li mu koy si sunu boroom borom yi ndax sëriñ bi am na benn mag bu mu joxoon ndongo yu bari maanaam boole kook mbooloo bi mu ko booleek mbooloo mu ànd ak mbooloo ma di dem di leen digal ak tere mu dem bu yàgg mu nar a yokkat mu ñëw si sëriñ bi naka ah Mbàkke ñi ngi ma boole loon lu ci ëpp digal naa leen waaye ñu tee faaw li may def daal mooy ma mujj bàyyi leen dem sëriñ bi woo ko naka déedéet continuer di leen digal nga ànd ak ñoom si li nga li ngeen di leen di digal nga di leen tere te buñ la gis si li nga leen di tere buñ ko defee su ëllëgee nga mucc ñu mucc buñ ko deful bu ëllëgee nga mucc kon sëriñ bi si ay tegginam rek gis nga am jàngaleem ni mu ni mu doyee waar kon képp koo xamante ne nag yaa ngi jóg ne bëgg nga ànd mbooloo mi te ñun def foofu la nekk ndax dañ na kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an raayatihi képp ku ci ne si ñun ab sàmm la te dinañ la laaj li nga doon sàmm na nga leen doon sàmmee kon mbooloo mi ni nga ko waxee rek si ndigalal jëwrin si njiital jëwrin comme nekk fi sëñ Moussa moo fi nekk maanaam ci yoon yooyu la ñuy teg ñun ñoom yoon yooyu la ñuy jaayante pour teg ñu si xëy na ndëkk léeg-léeg ñu yor ñu doyee di ñun ñu jàdd waaw te jàdd googu xëy na du leen neex waaye ñu xam ne ne nag jàdd googu gu jàdd rek suñu tayeef la suñu mbiru bopp la waaye ñoom li ñuy masa a digal rek mooy ñu jéem a teg su yoon kon nag ñun def foofu la ñuy jéem a ne nga xam ne ne ñi nga xam te dañuy jéem a àndax ñoom dem Touba ñu ngi leen di fàttali loolu di leen fàttali ndigal yi xam te ne xalif bi moom la joxe sëñ Muntaxa di kon ñaanal mu yàgg fi lool te àndax gu wér ñu jàppale ko si jotaay yu demee noonu maanaam si ndigal loolu ndax tey ji jël nañ ci ay matuwaay yu mat sëkk budul ñun wa daara ji muy wa Touba ña fa ne xamne serigne bi mo leen fa tek muy wa Safinatul aman jël nañ ci ay ay ay mbir yu doy waar yo xamante dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko wara tey dañ ko wara tey wa kon lolu dana tax tamit muy jangam alquran bi ak jangum xasida mi yoy yep digol digle nañ ko fa manam numu gëna sakane rek ndax da ciy bax berne amna solo lol waaye jàngam alxuraan meex jàng xasida ci liggéey bi la bokka bu fekkee ne am na si ñoo xamante ne ñu ngi leen di yóbbuwaale maanaam mënuñu liir mënuñu jàng xasida wala mënuñu def dara maanaam liggéey bi yaatu na foofu mën nañu def ay zikr di def ay salaatu ala nabi lim bu leen neex bu leen soob ndax ak jaamu yàlla la mën nañu jël ay ndox di ko maye mën nañu fekk ay mbalit ñu di ko for maanaam di xëccoo jaamu yàlla dañ koy xëccoo dañ koy xëccoo ay yiw dañ koy xëccoo du doy ndax sëriñ bi wax na ne ëllëg maanaam biir suuf ku fa ne da réccu moo xam ku baax la moo xam sofaan la nee na ku mu mënti doon da bu dee ku baax la maanaam da nga réccu loo tax lu taxoon dolli woo jëf yu baax bu dee koo xamante ne ab sofaan la ne woon ci kaw suuf dana réccu lan moo tax mu ñëw si kaw suuf di fi def lii ndax seen bi waxoon na tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk barsax liñ gën a bëgg xemmam ko mooy ñëwaat àdduna raddu duniyaa donte ne ab saala maanaam delloo si biir delloo si kaw suuf donte ne benn minute la wala benn saa waxtu bu ndaw ne na danañ danañ ci liggéeyal sunu boroom loo xamante ne dana leen doy kon loolu ñu déggee si ne war nañu bàyyiwaat xel bu baax liggéey boobu ñu amoon dëkk genn xasida goo xamante ne buñ laa sori rek di xaabaabal dañ ko defoon xëy na woy yoo xamante ne guddul sax ñu doon ko barkeloo dañ na woon xam naa du ñu tàmbali sax ci tàmbali bi dañuy am na tibb ci biir rek sëriñ bee ci wooteeg cant ngir bëgg a jaam ñi raw maanaam ci weeru safar ku santul du gor nan nan sant Seex Bàmba fii safar te Seex Bàmba ab wooteem ku xës dégg war na la nga santal ko buur bi nga santal ko buur yàlla ci bés bi bés bi 18 safar maanaam sëriñ bi moo woote ci weeru safar ak sant kon képp koo xamante ne dégg na ab wooteem yow sant woogu war na la ndax sëriñ bi bi mu ko diglee daanañ ko def mbokki taalibe yi daanañ ko def wala jullit yi daanañ ko def mais ku ci ne yaa ngi ko daan def gox ba nga ne waaye sëñ Fallou si yaatalam moom moo ko yóbbu Touba bëgg mu yaatu bëgg ñépp jariñu mu woote ko foofu sa Touba kon bu dikkee nag jar na mbokki taalu bi yëpp bàyyi ci xel moom la ñu wax ne sëriñ bee ci wooteeg cant ngir bëgg a jaam ñi raw ku santul du gox nan sant Seex Bamba fi safar te Seex Bamba ku xës dégg war na la nga santal ko buur bi buur yàlla ci bés bii 18 safar sëriñ sëriñ bee waxoon koo xam ne mbégteem mooy sa mbég su bés bi dikkee santal ko buur bii boroom safar sëriñ saalixoo waxoon ñaari nit fuñ fi dendatee ka cay moroom may waaj a fonkoon 18 safar te loolu wax ni sëriñ saaliw la mu ne ñaari nit fuñ fi dendatee kii tiim moroom ma mooy ki nga xamante ne moo fonkoon 18 safar kon loolu message bi ñu siy jàllale comme laaj bi nga laaj ne nu ñu fay demee maanaam loolu mooy woon yilla bi maanaam ñu dem fa jàppale sëriñ bi si ndigalam muy góor yàlla yi muy soxna yi. waaw ñuy Touba ci kàddu yi bu guddee. jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh euh, Djibril def naa kàddu yi nga xamante ne moom la indi si ni nga xamante ne noonu la nit ñi war a mën a taxawee fële sa Touba def naa leer na si ñi koy seetaan ñëpp xam naa duñ def rek euh, lu dul dem si Cheikh Abdou Lahat Wade moom mi nga xamante ne si wàllu comme finance bi si wàllu kaar yi. Euh, ni muy demee dina si ñëw xam naa première laaj bi rek mooy si wàllu finance xam naa ndax ku war a dajale mbooloo mu toll nii war leen yóbbu ba màggal Touba dajale ay bis yu bari donc am na noo xamante ne daara ji organiser wu na ko pour euh, au moins euh, mën a mën a berndeel mën a mën a fexe ba yóbbu nit ñi donc si côté boobu rek boo ñu si mënee ñëwul ak wàllu kaar yi disposition yi nga xamante ne jël ngeen ko. Euh, pour kaar yi ak ban paas bi ñaata la ban heure la ak ban jour ngeen di départ yëpp incha allah. ok jërëjëf salaamaaleykum wa ñu ngi nuyu mbokki taal bi ñuy seetaan yëpp di la ziare yow mi laaj laaj bi di ziare ñi ñuy seetaan ñëpp di am mbégte lool si jotaay bi euh, di wax rek comme ni nga ko laaje muy laaj bu njëkk bi daanaka doxin bi nga xam ne moom la ñuy doxee fi si daara ji. mooy lépp lu jëm si màggal gi moom mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ne si daara ji doon ay membre ñoom ñoo ko ñoo ko sasoo nga xam ne saa bu ñu jógee màggal rek euh, lu mel ni ay sas la ñuy la génne ku si nekk am lu ñu la féetale muy sa sa sa sa sa wàll mm-hmm. nga xam ne balaa màggal gi di jege rek mm-hmm. di nga fexe dugal ko si mm-hmm. euh, loolu la ñuy sukkandiku def ko muy muy muy budget màggal gi si si tënk

paas na la dina am ticket bu ñu la jox bind sa tur ak numéro bus bi euh, ku ñëw itam fa fi nga xam ne fa la ñuy déparé euh, xam bus bi nga xam ne si nga war a dugg du jafe ndax bu boobaa bus bu ne dinañ si def numéro bi euh, si kanamu oto bi ak si bunt yi ba nga xam ne boo ñëwee rek du jafe pour nga pour nga xam ko ñuy wax ne itam paas bi douze mille la départ bi incha allah ñu ngi ko jàpp talaata muy mardi le quinze octobre Euh, bëgg nañ incha allah képp koo xam ne bindu na rek mu fexe sept fekk ko si garage bi bu ko defee ñu mën a teel a yeeweeku euh, wàññeeku bi itam day nekk vendredi muy ajjuma le dix huit octobre euh, boobu tamit incha allah bu ñu xëyee fajar rek dañuy tàmbalee wàcc bëgg nañ incha allah itam balaa sept fekk bis yëpp ña si war a dugg dugg si ñu mën a ñu wane a wàññeeku incha allah mhm. ku bëgg paas itam man nga

Eh, doxalee lu jëm si wàllu transport bi incha allah. waaw gontu yéen dégg loolu donc information jàppali ko mooy dama gis ne tey li ngeen war a dajale si ay nit tamit yóbbu ko wax dëgg yàlla bari na parce que juróomi kaar yóbbu ko fii ba Touba te lu si bari si li nga si tënk si ay wax mu doon eh, ay sas ak loo xamante ne si wàllu paas bi la. defe naa tamit eh, dëkk bi lu mu dee dee am na fi ay ñoo xamante ne ñu ngi ay ndomb tànk aussi lu nu mel tey même bu dee ñooñu ñëpp yéen la yéen da ngeen war a jëlee yóbbu leen jële leen ngor yóbbu leen ba Touba defe naa ñoom seen warugar la ñu jàpp si defe naa ñooñu tamit sollicité nga leen pour ñu jàpp si parce que defe naa ndimbal moom du doy te sax defe naa ñi ngeen di yóbbu defe naa am na ñeneen ñoo xamante ne comme tàmm nañ ñëw rek dañuy ñëw wala ñëw dañuy ñëw si dalukaay bi hmm. est-ce que disposition yooyu aussi jël ngeen ko wala dox ngeen si. ok jërëjëf waaw bu dee wàll boobu moom euh, daanaka. màggal gi comme ni ko ñëpp xame rek mbir la moo xam ne sëñ Tuubaa da see diggee loo xam ne moom ka ko jëf rek moo ko mën a xam buñ sukkandikoo si loolu dañ naan at bu jot am na ñoo xam ne daanaka duñ leen sas wala duñ leen laaj ndimbal wala dara waaye ñoom ak seen tolluwaay seen diggante ak sëñ bi ñoo yëkki la ñu am rek joxe ko ba si ñi nga xam ne ñooy membre yi sax te ma wax la ne dañuy am ay sas ku si nekk lañ la sas sa dossier am ndax dinañ la sas si misaal cinquante mille booy ñëw nga joxe cent mille mbokki bi moom ak jullit yëpp sax ndax ku ne xam na njariñ li na si màggal gi moo tax ñu bari duñu xaar sax ku leen ne joxe leen nangam wala nangam waaye ñoom ñooy sas seen bopp yëkki joxe waaw xëy na loolu lañ si mën a tënk rek xëy na sëñ Mamadou Kosso bu accès dina gën a mën a leeral si wàllu woowu ñuy wàccee kàddu yi. Eh, di ñaan yàlla defal ñu tawfee ñu fekkee màggal gi ak jàmm incha allah. incha allah jërëjëf jërëjëf eh, wàllu hébergement bi. mooy xam naa dalal bi nga xamante ne war nañ ko dalal eh, ñi nga xamante ne ñëpp ñooy jóge fii si Ngor war a dal fële sa Touba ah, xam naa duñ def nag lu dul waxtaan si ak Serigne dàmm indi si ay dispositions yi nga xamante ne jël nañ ko si wàllu dalal gan yi bu ñu foofu sa Touba. mooy sëriñ daam xam naa nga indil ñu ay leeral rek si wàllu boobu bismillahi rahmaani rahim wa inni uhizuha bika wa zuriyataha min aseytaani rajim rabbi ahuzu bika bika min hamazati sayatin wa ahuzu bika rabbi an yahdurun asalaamaaleykum mbokku taalibe yi ñu ngi nuyu képp kuy dégg suñu kàddu di nuyu waa télé yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi di wax ne ak yokku am na si ndaxte daaw waa Ngor TV lañ àndaloon ren waa Kër Maam yokku nañ si di wax ne loolu ak te di ñaan tam ngeen gën a yokku jëm sa kaw kaw waa di wax ne rek xëy na fi nga wax ne jëm hébergement mën nañ wax ne ñun ñooy dalal gan yi ndaxte boo xoolee comme ni ko jibi waxee danañ yóbbu lu tolloo juróomi bis ab camion maanaam te képp ku ku dem Touba. daara ji loolu la yóbbu mais dina am ñoo xamante ne dañuy yooru ñii dañuy jël ay auto particulier mbooloo mi fa nekk maanaam dina baray baray goo xamante ne buñ koy xayma dinañ ne dinañ dalal si lu tolloo fukki kër ak juróom benn maanaam te loolu ku koy dalal si gan laaj na disposition yenn yi maanaam jël nañ si ay disposition yu mat sëkk yoo xamante ne dañuy fàggu ay matelas ay basan yoo xamante ne ñi nga xam ne ñoom la ñuy yóbbu buñ demee si lañ leen di dalal di wax ne itam la nga xam ne moo gën a fës ci hébergement muy mbokku taalibe yi nga xam ne ñoom la ñuy yóbbu dañ leen di soññi comme ni ko seen Jibril waxee si maanaam nekki ba nga xam ne moom la ñu war a nekkee Touba ndaxte comme ni ko sëñ taxaa joxe ndigal yaakaar naa ne amuñu si ay caaxaan ndaxte waa Safinatul Amaan taxawaay bu mat sëkk lañ si am kon ñi nga xam ne ñu ñoom la ñu yóbbu ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla jëmmi sëriñ bi nangeen ngeen xool seen yére yi nga xam ne ñoo gën a yiw si seen i yére ngeen boole ko si seeni i la nga xam ne moo gën a yiw si seen i bagage ngeen yóbbu ko ndaxte damay wa faral di wax ne fa ñuy defaroo waruñu fa yàqoo ndaxte loolu déggin la laaj ndaxte dañuy dem ngir sàkku ji ay ngëneel kon keneen ku fa dem di def leneen lu bokk ak lañ fa lañ fa lañ fa lañ fay yóbbu lañu fa yóbbu maanaam ak yàqute mën na fa am loolu daal dañ siy soññ ñi nga xam ne ñu ngi dégg suñu kàddu di di waxaatam la nga xam ne moo jëm si hébergement ndaxte mbooloo mu yaatu la ñuy yóbbu mbooloo mu yaatu sax te boo ne Ngor képp ku fi jóge dem Touba moo xam nga dem si ñun ak nga ñàkk dem si ñun boo ñëwee daal xasaayit laa la wax la ñëpp fa la ñoo jubal te foofu waa Touba yi dañ ñoo xaar di ñu waajal te maanaam comme ni ko Cheikh Abdou Lahad waxee dañuy fàggu xéwal yu bëree bëri ak bagage yu bëree bëri loolu dañ koy def di si sant sëriñ bi di ko sant sëriñ Touba waaw te loolu man damaa wax ne kanam rek la jëm lu ñu defoon daaw dañ koy yokkaat dañ koy dañ koy gën a yokkaat ndaxte yoonu sëriñ Touba amul tànk ginnaaw loolu def benn déwén ñaar nga jëm walla ñetta waaw loolu daal. laay xaw a taxaw si côté hébergement bu dee amoo beneen laaj. waaw xam naa laaj bi moom mooy disposition yu ni mel peut-être boo leen ko jëlee su ma la déggee rek day mel ni euh, say say wax du question espace mais comportement bi fa nit ñi war a yor. yéen fi nga xamante ne bu dee da ngeen ne góor ñi fii la toog góor ñi nañ fa toog jigéen def naa si loolu ngay ngay addu ñi nga xamante ne ñooy ñëw ak yow wala du waa waaw jërëjëf ji bi daanaka loolu la sax ndaxte boo xoolee Touba dëkkub diine la. doo dox doo dox juróomi kër wala juróom benni kër te dajoo jàkk mm-hmm. maanaam Touba dëkkub diine la mm-hmm. maanaam ku fay dem da nga war a da war a yor comportement ab diine mm-hmm. maanaam sella di sellal saa su ne di góor ñi ak jigéen ñi ñu bañ a njaxasoo même ba si kër yi kër yi sax fi ñuy dalal gan yi dafa am foo xamante ne góor yi ñoo fay nekk am néegi jigéen ñi góor yi duñu leen mas a boole te mën nañ wax ne ñi ñuy yóbbu dem nañ ba nga xamante ne jàppante nañu ak waa Touba jàppante goo xamante ne nii maanaam ku si nekk rek boo yëgsee xam nga kër gi nga jëm. Mm. te dañuy dem sax bay bay bay bay demalante ak di dikkalante. Mm. di déggante tam par téléphone loolu. Mm. maanaam ànd bu yàgg moo ko indi. ànd bu yàgg moo ko indi da ngay def ko kenn xewle fii si Ngor. waa Touba ñëm fa kër ga muy dal ñooñu ñëw seet ñëw leen si seen bés taxawu leen. Touba tam ñooñu buñ xewle da ngay gis ñu jóge fii dem ba foofu. kon loolu maanaam kóllëre googu. dañ koy sàmm. waaw xanaa foofu laay eh, eh, doole daaneel kàddu yi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Souley ah, donc dégg ngeen ne li nga xamante ne moom la dig mooy si wàllu comportement bi ñoom li nga xamante ne teg nañ ko muy kër yi nga xamante ne dañ dalal góor ñi ak jigéen ñi ak disposition yi fa jëlee nit ñi respecté leen ko xam ne tamit ah, si màggal lañ jëm. ñu ngi nuyu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp ku ci nekk ñu ngi lay nuyu bu baax ah, tey fas yéene jublu si. laaj bi nga xam ne seen Jibi mu ngi ko laaj de passage ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare mm-hmm. uh, di nuyu waa télé bi bu baax a baax di leen ñaanal ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu balaa déwén ñu yokk ba yëg ko si barkeb sëriñ bi waaw uh, di fëske ne jublu si laaj bi rek muy ne wax dëgg yàlla daanaka ba ñu jegee màggal ak daaw lañu noppi di waajal màggal ren gi dëgg yàlla muy commission général ba commission organisation ñu ngi siy dox di si def ay réunion di si def ay waxtaan ba jëm jëm jëmale si bés bi euh, li di wax ne rek euh, ñu ngi toll si jamono yu ñu toll nii di waajal bagage yi bagage yi nga xam ne moom la ñuy waajal di ko yeb si camion bi mu yóbbu ko Touba euh, lu jëm si wàllu baas yi ak wàllu kin yeeg bool yeeg xeet yooyu ak lu jëm si wàllum ndox dëgg yàlla am nañ genn kuréel goo xam ne muy kuréel tu tànk yi muy kuréel 3 ñoom ñu ngi siy def ay jéego yu am solo Euh, di dajale ay ay butéelu ndox yoo xam ne fu ñu ko mën a jële rek dañ koy jëlee foofu indi ko fii si benn barab euh, waajal ko bu baax euh, def si ay ndox buñ si yeggee rek ñu yëpp ko si camion bi camion bi yóbbu ko leneen li mooy lu jëm si wàllu galaas xeet yooyu ñoom ñëpp ñu ngi siy dox ay jéego yu am solo dëgg yàlla lépp lu jëm si matériel rek jamono yi ñu ngi koy ñu ngi koy waajal moo jëm moo xam lu jëm si wàllu togg gi ak lu jëm si wàllu ndékki li ak lu jëm si wàllu baas yi digg yàlla daanaka lépp noppi na. lépp noppi na li des mooy ñu waajal suñu bopp rek àndandoo ñun ñëpp dem ca bés ba. daanaka loolu rek moo des jamono ñu toll nii. li nga xam naa balaa may jàll fële si organisation bi fële si Touba comme li nga jot a daaneel euh, si ay euh, kàddu est-ce que tamit amul yoo xamante ne tey peut-être soxla ngeen ko walla bëgg ko te peut-être nga euh, war koo wax. fi nga xamantene peut être waa dëkk bi ñu bari ñu ngi lay seetaan si nit ñi buñ la si mëna jappalé jàppale si kuréel yooyu nga xamantene peut être buñ ñëwé di leen sersi pour ñu mëna leen si jappalé pour mbir mi gëna yombay yombaay waaw côté boobu day wax dëgg yalla euh amna yo xamantene lu jëm ci walu matériel mm-hmm. euh wax dëgg yalla suñu mbokki laay ni ñom dañ nañ ci jappalé bu baaxa baaxa baax euh bu weesoo lool mom euh, daanaka li ci dess yépp mm-hmm. euh mbokki talibé yi wax dëgg yàlla ñoom am nañ ci ab taxawaay bu bu bu bu bu bu bu bu yéemaan bu bu kéemaane sax waaw loolu moom wax dëgg yàlla ñoom sant nañ si bu baax lépp lu ñu soxla rek ñun mbokki taalibe danañ ko jaayante ba fépp foo xam te ne mën nañ ko fay amee rek ñoom bu ñu demee foofu jëli ko andil ñu ko daanaka communication bi mu ngi daw suñu biir wa ba amuñu si problème daal si côté boobu waaw moom ñu ngi siy sant bu baax a baax. fële na la bu demee ba Touba si wàllu organisation bi par exemple disposition yoo xam ne jël ngeen ko. waaw bu ñu demee ba Touba nag wax dëgg yàlla euh, commission générale bi euh, dafa doon def ab liggéey bu am solo lu jëm si màggal gi daanaka bi ñu jegee màggal Touba daaw ba fañ toll nii euh, ba tax na si biir loolu waxtaan nañ ci def ay ay secteurs yoo xam te ne secteurs yoo xam ay pàcc pàcc la doon lépp nag mu ngi mu ngi bàyyeekoo si commission générale ñëw si commission organisation ndaxte ñii ne si secteurs yooyu ñoom ñëpp ñu ngi si commission organisation. ba tax na euh, secteur bu si ne euh, daanaka mu ngi bay waaram jëm si liggéey liggéey bañ ko dénk euh, xanaa ñu fës kee ne tudd rek secteurs yi bu fekkee ne kii na secteur bi ñuy ñëkk a tudd mooy lu jëm si wàllu magasin bi waa dëgg yàlla magasin bi lépp loo xamante ne bagage la wala lépp loo xamante ne aw aw ñam la fa lañ koy jenc ñooñu dafa am ñoo xamante ne ñoom lañ ko dénk ñuy jëwriñ yi bu ñu weesoo foofu ñu dem si secteur boo xamante ne muy Euh, waa cuisine ñoom tamit am nañ jëwriñ koo xam te ne moo nee foofu ak ñi mu ko àndal euh, waa ñi yor wàllu dessert dessert dessert bu lépp loo xam ne lu jëm si wàllu dessert la tamit euh, daara ji fàggu na ko teg si ay loxoy nit ñoo xam ne am nañ barab boo xam ne ñoom seen wàll seen lu jëm si dessert rek ñoom fa lañ koy teg ba buñ ci yeggee ñoom ñu doxalee ko nañ ko bëggee beneen bi mooy lu jëm si wàllu petit déjeuner ak café mooy ñiy defar ndékki li ak ñiy séddale kafe gi gannaaw takkusaan ñooñu tamit am nañ barab boo xam ne ñoom fa lañ leen féetale ba tax na ñoom tamit ñu ngi siy def ab liggéey bu bu bu am solo sax euh, tamit am na lu jëm si wàllu pâtisserie pâtisserie muy euh, ñiy defar euh, mooy pain au yi ñuy ndëkkee ak xeet yi yu baax yi ñuy def si bésug màggal gi ñoom tamit am na fu ñu leen waajalal loo xam te ne ñoom bu ñu ñëwee ñoom fa la ñuy féete di def seen di def seen liggéey beneen bi mooy lu jëm si wàllu invité yi wax dëgg yàlla am nañ ñu ngi ko dénk tamit ñoo xam ne mooy euh, kilifa yi nga xam te ne ak daara yi nga xam ne ñoo ne si dëkk bi euh, daara ji daf leen di jox ay carte invitation yoo xam te ne ñoom dañuy yebal ndaw bu ñu ñëwee am na fu ñu leen di dalal ñoo xam ne ñoo ñoo ñoom ñoo leen di jël en charge spécialement ngir jëm lu jëm si màggal gi lépp loo xam te ne yittewoo nañ ko rek ñu ñoo leen di gérer ak lu jëm si wàllu service service tamit am nañu ab jëwriñ goo xam ne moom moo yor wàll woowu Euh, di wax ne tamit euh, ren am na benn innovation boo xam ne bëgg nañ ko si si màggal gi mm-hmm. ngir mu gën a noppal si wàllu si wàll yëpp mm-hmm. muy ne euh, kër gu ne bëgg nañ def fa genn membre boo xam ne maanaam mooy féetewoo foofu di toppatoo waa kër googu du jar tamit ñoom waa kër googu lu ñu soxla di génn di dem si di ko di ko laaji li jëm si coordonnateur coordonnateur yi wala kenn ku mel ni si waa hébergement wala xeet yooyu mm-hmm. ki ñu fay teg moom mooy toppatoo ñooñu moo leen di saytu si lépp loo xam ne bëgg nañ ko dem waxtaan waxtaan seex lu mel ni ku ku yor euh, hébergement bi wala ki yor coordonna coordonnateur bi euh, ñu ñu dox si seen i besoin waaw loolu tamit mooy innovation bi xam te ne da jël nañ ko ren daanaka loolu day day noppal sax service bi te tamit dina tax tamit euh, lépp loo xam te ne ab service la jëm si wàll woowu danañu gën a noppal li jëm si xewal yi ak ndékk yi waaw loolu tamit mooy innovation bi ñu si jël Euh, wax dëgg yàlla am na euh, boucherie yi euh, ñoo xam ne ñoo yor wàllu nag yeex xar yeex yooyu mhm. ñoom ñoo koy waajal bu baax yónnee ko waa cuisine mhm. ñoom ñu def seen liggéey mhm. bu ma jumul daal am na am na santé tamit santé waa am na santé secteur boo xam ne wàllu santé la mooy médecin yi ak infirmier yi nga xam te ne ñoo leen di yóbbu pour ñuy seetu wér-gu-yaram yi mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi ñu fay yóbbu ak lu jëm si wàllu hébergement mooy sëñ daam mi ko yor moom mi wax léegi moom mooy dalal gan yeeg yooyu. Mm-hmm. Euh, loolu yëpp euh, boo xoolee euh, ak wàllu culturel gi nga xam ne ne mooy bësug màggal gi ñoom ñoo yore lu jëm si prestation bi ak jàngum alxuraan beeg ak waxtaan wi nga xam ne ne moom lañuy def si bësug màggal gi mm-hmm. te it am nañ ay ay ay jëmtukaay yoo xam ne jël nañ ko ay mesures yoo xam ne jël nañ ko bu ñu yeggee si bës boobu ñu defee ko noo xam ne sëriñ noonu la ko bëggee te it ñu fexe ba mbokki taalibe boo xam ne ne yóbbu nañ ko ak mbokki julli boo xam ne ne yóbbu nañ la Tuubaa rek mm-hmm. sa xol nu mu nu mu seddee rek wax dëgg yàlla ñun loolu la ñuy jéem suñu képp kàttan ba lépp lu ñu si man rek bu soobee yàlla ak sëriñ bi danañ ko def euh, bu ñu waxee maanaam wàllu secteur yooyu yëpp di lancer message mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi ne wax dëgg yàlla képp koo xam ne ñëw na si Touba ci dal bi lépp loo yittewoo muy secteur yi nga xam ne wax nañ ko si euh, boo demee si ñooñu rek ñoom danañ la toppatoo naa mu waree incha allahu rabbi te jën nañ si ay matuwaay jël nañ si ay mesures bu soobee yàlla ah, di wax ne tamit di jégaluwaat bu baax am na service boo xam ne secteur hygiène ah, ñoom ñoo yor si wàllu lépp lu jëm si hygiène si dal bi ah, mooy wàllu toilette ak wàllu nettoyage bi yëpp ñoom ñoo ko yor wax dëgg yàlla ñoom tamit ñu ngi siy def ab liggéey bu mucc ayib wax dëgg yàlla loolu loolu yëpp dafa tënku si wàllu organisation ba tax na loolu yëpp waxtaanee nañ ko ba secteur bu si nekk am na fu ñu ko féetalee ba ñoom ñëpp ku si nekk tamit jëwriñ gu si nekk woo nañ la fii si daara ji waxtaan ak yow lu jëm si liggéey bi ba euh, incha allahu rabbi boo si boo si yeggee nga def ko euh, ni ko daara ji bëggee ni ko sëriñ bi bëggee waaw loolu la wax dëgg yàlla loolu bu ma juumul mooy ay kàddu yoo xam te ne. Mm-hmm. lu jëm si wàllu organisation loolu waxtaanee nañ ko. Mm-hmm. ba noonu lañ fëskee ne doxee jëm si euh, màggal gi. Mm-hmm. waaw loolu moom. ñuy jégaluwaat bu baax ci kàddu di tuubaat bu baax a baax. waaw jërëjëf sëñ Souleye donc ñu ngi lay gërëm baax di la sant donc kàddu yi leer na si disposition yi nga xamante ni yëpp jël ngeen ko pour organisation màggal gi jaar si yoon xam naa duñ def nag lu dul jeexal eh, ak koosa mi nga xamante ne moom mu ngi si wàllu coordination bi xam naa nga ñëwal ma rek si laaj bi nga xamante ne sànq moom laa laaj sëñ laxat mooy si wàllu autorité yi. Euh, beneen bi nag bi ëpp solo te ma koy gis lu bari muy am si wàllu ay kaar bu ñu taxawee garage ak yëpp muy wàllu comportement bi est que tamit loolu am na ay ay ay waxtaan wala peut-être balaa nit ñi di yéeg si biir kaar gi di dem Touba dina am ñoo xamante dañ fa yéeg waxtaan ak ñoom ba nga xamante ne comportement bi ku koy gis parce que nee nañ day tàng am ñoo xamante dañuy solo nu leen neex ak yu ni mel est-ce que aussi disposition yu ni mel aussi jël ngeen ko. Ah, kon ñu ngi santaat bu baax. di jëfalaat ñëpp rek si waxtaan yi nga xamante ne nii euh, ñu ngi ko doon amal léegi euh, xam naa euh, jaar fii si Abdou waxoon léegi rek. Mm. muy wàllu transport ak jëm si côté finance bi ni mu ko waxee noonu noonu noonu rek lay demee. oto mm. yi oto itam kuy ñëw paas bi da ngay dem kër si Abdou Lahad li tax ñu dem toog foogu pour bëgg ku ñëw di paas dañuy la wax ne kat. condition yi nangam wax nangam wax nangam la soo defee itam euh, li nga laaj léegi muy bu ñu taxawee si garage bi bu ñu rappelé benn oto bu oto bi pare dinañ taxaw kat yéeg si man mi souvent sax maa maa faral def yéeg na xamal na kat ñun ñu ngi dem Touba ni ko Jibril waxee léegi dafa am Touba loo xamante ne ni moo ñu fa tax a dem li ñu tax a dem Touba nag mooy dem ji ja jaamu ji jaamu ji yàlla jaamu ji yàlla nag dafa am lu mu laaj ndax tey gii euh, ah loo mën a def rek. boo booy si oto diggante euh, bi nga fay jógee dem jóge jógee Ngor dem dem dem Touba wane wane fi leneen dafay dafay dafay dul xaj ndax nañ nekk si lu baax rek ñu waaw ñu xamal leen ne kat ñun kat nii lañ bëgg a ngeen nekk ka mhm. waaye itam euh, mbooloo moo gis nag dafa am ñoo xam ne dañuy xaw a mel ni man mhm. xëy na ay wax rek du si man man man dara mhm. ba xoolal sax dañuy jël euh, lu mën ni ay liste noire day am maanaam liste rouge maanaam koo xamante ne nii euh, am nga yenn comportement bu ñu waxante yow kii wala après dañ lay jël ñu xamal ne ñun kat ba loolu neexee daal man man man nga dem Touba mais suñu oto moom kenn kenn kenn du si ànd yow. kon yooyu dañ ne dañ leen koy fàttali rek ni ki ji waxee euh, sañ daam dugg sànq mooy fu xamante ne nii da ngay dem pour pour pour ñu daal la fóot euh, boo fa demee di fa naanam dem dafa xay day day day xaw a métti si yow. waaw kon nag ñuy ñuy ñuy fàttali nit ñi rek ne. dañ dem Touba pour jaamu ji yalla seigne Touba dañ ñu kay leen santal ma suñu borom sa sant ñun ñu santuñu sa seigne Touba yalla la ñuy sant nit ñi fa ñu bayyi xel lolu sa sa santuñu sëriñ Touba de tayit ak mo war nak ak mo war mom ci si du jour safar bi dana suñu borom da si def ay xewal kay leen santale ma yalla kon si loolu lañ lañ jëm muy jangam alxuraan meeg lumu andal lepp ñu bayyi ci xel. maanaam wàllu euh, berne itam du mën a du mën a ñàkk yooyu itam ñu bàyyi si xel waaye si laaj bi nga laaj sànq mu jëm euh, finance bi nga xamante ne moom la si Abdou doon wax léegi xamante ne ni buñ jógee màggal rek dañuy tëral kenn ku nekk li muy joxe ndax nee na la di nga gis koo xamante ne da koy wax fukki dërëm ngay indi mu indi la mille cinq cent kon loolu ak jaayante dëgg la laaj mu am tamit ñoo xamante ne ni du leen wax dara ndax yàlla def na daara ji dafa am habitude ab maanaam dañuy bëgg li ñuy def ñu defal ko suñu bopp kuñ si fekk nag ñu ne la jërëjëf waaw ku mën ni côté maire bi foog ñu wax ka moom dina am loo xamante ne da koy génn at mu ñot at at at mu jot mu génn ko jox ko murid yi xamante ñoo nekk ngor soo defee kenn ku nekk nag li nga siy am nga am ka si Euh, léegi ku mel ni Antou Samb dëkk at mu nekk itam moom dina defaat ni ñooñu dina am ñoo xamante ne yàlla def na suñu ay xarit lañ suñu ay ay mag lañ suñu ay baay suñu ay nijaay suñu ay bàjjen suñu ay jarbaat ñoom kenn ku nekk rek danaan ah taaxam yi kat xaama yoon nekk juróomi mbuus ndax su ñu toll nii rek may nañ ñu toll si deux cent cinquante mbuusi ndox. sa sa sa sa sa say ndox yow te du sànq rek am na ku ma oo na ma lu tolloo si ay ay genre suo bu fekkee da ngeen ko da ngeen ko yittewoo di di ma jënd dama andi leen ko kon yu mel noonu mooy tax waaw kon nag euh, màggal gi daal organisation ni ko su lay waxee dafa am pàcc bu nekk nag am koo xamante moom moo nekk foofu waaye li si gën a am solo nag mooy nekki ni foofu ndax euh, safinatu amaam bi nga xamante ne nii ñu ngi ko doon tudd sànq ba tey boo demee ba si jumaa ji nag dafa am daayira muxaddamatul xidma ñoo xamante ne ni lépp lu nekk si jumaa ji ak li ko wër ñoom ñoo ñoom ñoo nekk foofu boo yoree yenn wateef yi euh, duñ la bàyyi nga jugg ndax daaw am na si ñoo xamante ne dañ àndoon di dem am na si ñoo xam ne dañ leen jël daal leen bàyyi si biti te loolu itam daxatul daxaloo jar dem ba jumaay Serigne Touba war a dugg si siyaar ko te tedd gi ñu ne la dama taxaw fale dara jor ko si àdduna kon war nañ mën a sol ay yére lu mu tàng tàng tàng ndax ëllëg kat boo nekkee sa fan mu gën a tàng fuuf teyit lii mën na la kaa mën naa la see dimbali ba baax ndax sëriñ bi moo ne ku ku ku fi ku ku ñëw màggal ku ñëw màggal te suñu borom tax mu sën njéggal fépp waaw kon loolu dafa jar ñu bàyyi ci xel. waaw ñu bàyyi ci xel bu baax a baax muy jigéen ñi itam wàllu souvent boo yoree yenn comportement yenn muuraay yi bu jekkul sax dañ lay jël waaye nag jamono yi ba si Ablaye bi sànq rek ba si tabaski gii paase. am na ñoo xamante ne ndigim ku mën a fekke ay magasin yoo xamante ne doo doon jaay ay genre affaire yooyu ñu la ko tëj marsamalaan rek ni sol koy mu daal fa ñëw waaw kon yooyu nag dafa jar ñu bàyyi si xel bu baax a baax a baax ñu xamante ñun ay ay mbokk te voyage tam yàggul oto euh, soixante dix place wala cinquante place man mi su ma toogee man a bàyyi daa ma jibilaay man si si si Versailles bi la ma toog jibilaay kam mën naa jege saa ne sëñ koos kaay kaay kaay toog nii am na ay ay ay ay yaay yu ñu àndal am na suñu ay doom yu ñu àndal am na suñu ay rakk yu ñu àndal am na ñoo xam te ne dañuy yóbbu si seen i doom kon ñun ñoo war a dimbalante suñu biir rek maanaam boo jekkee nga toog mu yàgg après ngeen ko ah joxal fii nga ñëw toog nii ñu ñu bàyyi ñu bàyyi xel loolu daal kon di laaj di santaat tam bu baax euh, waa kër yi maam ak waa Ngor TV si taxawaay bi ni ko sëñ Dame waxee rek ak yokkute la euh, te li jubluwaay bi it mooy bëgg ñun ñii di seetaan wala ñi ñuy déglu ñu xam ne kat ñun fii lañ tegu ku ñu si fekk baax na ku ñu si fekkul tam baax na waaw li am solo daal mooy loolu. xam naa ma ñëw si dernière laaj bi rek mooy dafa am yoo xamante ne man su ma ko laajtee rek dama ko seetlu si yu bëri parce que bii passé nii rek Sarawonteg gaal bi ñu jógee gis naa ay xale yi boo fa def ba ay mag di ko ñaawlu mooy yéeg yi xew nii mooy dama jàpp ay susxa te yu nu mel te damay jàpp ne am na ñu bëri ñàkk information lay doon. Mm-hmm. te su ma jumul comme ni nga ko waxee fii rek am na ay dispositions yoo xamante ne tey bu dul yéen kuréel gi nii fële sa Touba jël nañ ko. est-ce que tamit yu nu mel muy bërëb yu nu mel yëpp information yi aussi am na yu si bëri jël ngeen ko te di si waxtaan ak ñëpp si kaar yi balaa ñuy yegg foofu. waaw yooyu tam bàyyi nañ bàyyi bàyyi loon nañ nit ñi bàyyi loon leen xel bu baax. Mhm. te it euh, am na si yoo xamante ne sax dadul jar ñu koy wax nit ki. Mhm. ndax Cheikh Mountakha dafa wax lu leer. Mhm. lu mën ni pon ah lu lu ñu ñoom. bu waxee Touba ñun ñu nekk Ngor te nekk ay murit ñun la waxal. kon ñun dañu war a bàyyi loolu xel. bu ne bu ne kuy xeesal ku nekk Touba ak ku nekk fii la la la sëñ bi waxal kon loolu dafa dafa am loo xamante ne nii moom du jot sax ñu naan nit ki bàyyi nang bàyyi nangam ndax yow da nga nekk am murid sa kilifa ne ne lii bàyyi leen ko kon jour boobu muy kenn koo xamante ab tuukat la danga war a bàyyi pon ak lu ñu rëppoon waxuma la leneen moom kenn kenn kenn du ko xalaata wax waaye lu pon ak lu ñu rëppoon da ko war a tekk na le comportement itam sol sol góor raf la ndax di nga gis tey ku dem jënd fukki mètre jas jas jasneer mais da koy ñaw ñaw bu rafle ñaw bu rafle mooy da ngay ñëw su def ko ay daggat yoo xamante ne kenn du xam lan la mooy euh, sin si di moxtaar yi mu daan wax rek mooy li jib doon wax sànq ñoom bennam xel lañ te ñoo bokk lenn lu ñuy wax Cheikh Mous Cheikh Moustapha ba si sëñ Muntaxa mi mi fi ne ñoom ñoo bokk lenn lu ñu jëm mooy liggéey ak jaamu yàlla kese nekk si lu baax di daw lu bon ñoom si loolu lañ nekk kon dañuy woowaat nit ñi xamal leen ne kat oto yi kat euh, kuy ñëw di paas tam ñu bàyyi xel ne euh, conditions yi lii la muy euh, yenn uufante yi itam dañ koy xaw a dañ koy dañ dañ koy bàyyi ndax man mii ma bàyyi daam mii man man ñoo uufante man mi itam mënumaa uuf ka man nii sëñ Saliou sama doom toll su fukki atax nàngam yow itam dañ dañ koy dañ dañ koy xaw a moytu ndax day day mitt ndax yow tey gi bu ngeen toggee yéen ñaar nii nga jël ab guni uuf ka yow da ngay sonal ki nga ki nga toogal da nga da nga koy da nga koy sonal bu la ko waxee ah bu bu bu la ko waxul te uh, yow tuyaaba laal uti kay kon jarul jarul def leneen ton yooyu itam ñu ñu bàyyi si xel baax nga xamante ne waxtu yi ñu leen wax tam nañ ci bàyyi xel te uh, yàlla mën naa def oto ñu ne leen huit heures ñëw leen ab oto mën naa ñëw ba si yoon wi paan loolu ñun du du duñ ci mën dara waaye condition yi teg nañ ko ba defante chauffeur yi lépp loo xamante ne defante nañ ko ak ñoom rek ñun defante nañ ko ak ñoom kon li si des rek mooy ñaan yàlla euh, oto yi ñëw si jàmm ñu dem si jàmm ñibbisiwaat si jàmm te euh, yiw bi yëpp ñu bokk ak mbokki jullit yëpp incha allah kàddu gi ngay tëjee waaw xanaa fi ñu tëjee rek mooy euh, di sant bu baax yàlla def commission bi nga xamante ne ñoo toog nii sëñ Moussa jëwdi nañu ñu ngi def liggéey bu aw am solo sax ndax Mbacke Diop léegi da mu ngi oote ndax wàllu wàññi moo ko féete ni ko su la doon waxee léegi rek it yàlla def ma xaw si féete mag waaye it mu doon ñoo xamante ne nii buñ toggee di waxtaan sëriñ bi kese lañ fiy teg mooy comme day am liggéey boo xamante ne dafa nekkoon suñu ay mag ñu jël ñu daan ñu ko jox. kon ñun ni mu gën a baaxee rek loolu lañ bëgg. kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax si liggéey bi ndax liggéey bi moom nii rek la yàlla defit euh, muy kuréel 2 muy kuréel 3 muy soxna yi démb rek fi lañ toogoon di waxtaan maanaam kenn ku nekk rek bëgg mu gën a baax la kon ñun ñëpp a jàpp da it pàcc-pàcc yi nga xamante ne moom lañ tëralee liggéey bi kenn ku nekk nag da ci xaj bu ba mu ba mu des ndax Touba moom dem fa ñu di la berndeel ndax ñun ñoo war a dalal gan yi waaw ñun ñun waa daar ji ñu war a dalal gan yi te euh, jël nañ disposition comme ni ñu ko waxee su lay sànq disposition yi moom ñun bo xolé dañuy lepp lu ñuy def dañuy def pour 1000 personnes lepp lu ñuy def nak ah lu ci mëna a dañuy def pour 1000 personnes ndax bu doon ne loolu di nga xamné ne ne juróomi buñ ko buñ ko tegoon mu mat waye kuy kuy teg fukki fukki cin ak juróom-ñaar loogu du pour 300 personnes roo rom nak kon loogu nak euh, day laaj nak euh, ñu santaat bu baax te mbokki taalibe yi nga xamante ne nii ñoo nekk fii bi ak ñi nek bi bitim rew ñi ngi ñaan sëriñ bi do leen dimbali. ak ñi nga xamante ne nii am na ñu si tudd lu mel ni maire bi wala ñu mel ni antu ak ñu mel ni ñoo xamante ne nii duñ bëgg ñu wax seen tur ñoom tam ñu ngi leen di sant bu baax baax a baax si ànd gi nga xamante ne jàpp nañ ne ñoom ñu ñu si jàppale ñu ngi leen si santaat bu baax tey jaajëfalaat euh, daara ji yëpp si confiance bi nga xamante ne jóorin am na ko si ñun ñoom sañ Moussa xam nga tey mu ngi ñëw toog rek bàyyi ñu ñu ñuy wax te euh, yombul daal liggéey bi moom euh, nañ gën a téewante rek te bàyyi xel mag ñi nga xamante ne itam ñoom ñooñu uh, jël liggéey bi jox ko jox ñu ko muy santé itam dama ko fàttee di di limaale muy uh, dispensaire dañuy bind lettre lettre bi dem na barka démb uh, président commité de gestion bi dañ koy jox mu jaare ko si docteur docteur Ka at mu nekk it ñu ñuy jox ay garab at mu nekk ñu ñuy jox ay garab waaw kon ñoom itam dañ leen di jaajëfal soxna Asia bi nga xamante ne Asia Gueye nekk maire ji euh, féete foofu moom itam noonu lañu ñu si jàppale muy maire bi kon moom mooy mooy waxaat rek nañu jox ay garab si euh, njiitalu Baytir Sam aku ak ak docteur Ka ñu leen di santaat bu baax a baax ndax loolu dafa doon pàcc boo xamante ne mën mënoo ñàkk si euh, màggal Touba gi ndax bu ñu demee Touba bu ñëw da nga xam ne liste yi bu ñu ko yoree dañuy am ay cent cinquante cas wala ay cent soixante cas tayit ñi nek Touba ñom dañuy xaar kon nak ñu ngi di sant bu baax euh, docteur Ka euh, elas baydir Sam aku ñu ne ahwa Santa euh, centre de santé bu Ngor bi yëpp ah, mën ni Thion ak Soxna ciaba ñi nga xamantene ah infirmier docteur yi ñi andal deug padwa yëpp ñu leen di jaajëfal bu baax baax. ak bégalam ñi nga xamantene ño aju ci mom ndax tay ji Nazir la ak Bachir xuppel ak begle, kon il faut tamit ñu begle bégal ki nga xamante ne aju na moom mu gën a am ndëgër laay gën a am fu mu gën a mën a tegaat cëslaay pour jàppaat sëriñ bi waaw ci loolu nag lañ waxoon sëriñ bi am ay bayt yoo xamante ne da ko waxoon ne faasa texe na muridun murid ba nga xamante ne lam yaman la yoxatut mi nii ci man maanaam texe na bi maa si la nga xamante ne yoxoosu dana làqa xayra man nin ngën ji xéwal ci loolu manam murid bi nga xamantene yokatul ci man manam demul ba yàgga mu yokat ragal neena koku dana làq ay xéwal yo xamantene xéwal yu màgg la muridun khadahu allah ila taalluxin bi wa yakhza bil ila neena na faasa muridun murid bi nga xamantene khadahu allah yàlla womat nako ila ilaa jemiko ci mu aju bi ci man mune wa yakhza ta dana xejja bil ila ci ay xéwal mu ne faasa texe na muridun murid ba nga xamante ne laasa wéeru na bii ci man bi ma ca la nga xamante ne yëfoo dana kawe zannaxoo njortom billaahi ci yàlla jaariya jaariya rafiix maanaam yàlla mi nga xamante ne mooy sama àndaale jaariya te mooy samay dëkk mooy sama dëkkaale tamit loolu ci kàddu yooyu si sëriñ bi rek lañ koy déggee ne yàlla mooy sama àndandoo mooy sama mooy sama dëkkaale mhm. mu ne kullu muridin bii yoloosu yas ando wa innahu minal baax ado mu ne bépp murit ma nga xamante ne aju na wéeru na ci man nee na yas ando dana texe wa innahu tanaka moom euh, mu baax baaxadun ku ñu soreel la minal aza ci ci mbugal wala ci lor mu ne kulli man li kulli man biya taallaxa najaa min kadari dunia wa fil yawmi najaa nee na ñel na képp nga xamante ne aju na ci man najaatan ak mucc min kadari dunia si nëx na yi àdduna وفي اليوم النجاة أتي بسو مجيب ثم بيانا توبا مليرال ني أن مؤمن الجن نكا وي جمي جني في عصره تي سما جامانو تعلقو أجونا نيو بي تي من فخال موحني بي تعلق الذين أسلموا من جن عصرين دون من لم يسلموا من تي لا أجو الذين نيغا خمانتاني أسلموا جيبلو جيبلو من جن تي جني عصري تي سما جامانو duuna man lam yuslimu lu dul ñi nga xamante ne ñoo jébbaluwul su ma xasara topp mu wottandikuloo man ka nga xamante ne temps loxo aju na bii ci moom mina idraadi ci ak wan gannaaw mina idbaarin ci ak dëddu wan gannaaw sëriñ bi bax dal ixbaali gannaaw bi nga ko dëgmalee maanaam sëñ bi daa soññee ki nga xamante ne daf ko dëgmal jublu ko ba pare nga koy wan gannaaw maanaam mooy tandakuloo na kooku moom lay wax naan waylun liman anni tawalla bax dal iraadati wa anni sabara mu ne wëylun taskare ñeel na li man koo xamante ne tawalla maanaam rekki na anni jëme ci man maanaam mudbira mu wan ma gannaaw baxdal iraadati gannaaw ba mu amee ak jublu ci man mu ne wa sabara te mu muñ nag min anni ci man maanaam mu muñ mu muñ mu muñ man sëriñ bi mu muñ ma nee na kooku maa ngi koy mooy tan ne nee na wëylun taskare ñeel na ko kon loolu laa amoon ci bayit yooyu xamante daa ko doon jàllale bu sëñ Moussa daa laata ñaan ñooy jégalu bu baax di ñaanalaat waa tale bi sunu borom yokk leen di jégaluwaat bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah. man auzu billahi mina shaytaani bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط تين صراط الذين أنعمت هي غير المضل وأسبل علينا ربي عافية وزن وجبا نبينا سنتم من الرحمن لنا صحينا وبدنا التوفيق يا يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم ارفع ذنوبنا تقبل منا وهمنا همنا تجمع يا مالك الملك يا من جارنا عظيم يا من جامع ولا يهم جامع ولا